léegi nag ihsaan mooy ngay jaamu yàlla mel ni yaa ngi jàkkaarloo am mooy loolu yi ma waxoon léegi ni bu ñuy jógee Ndakaaru jëm si Touba xam ni jëmmi Serigne Saliou la ñuy jàkkaarloo waa doomi Serigne Touba dañuy daal di mel noo xamante ni jullit dëgg maam benn xebet du ko mën a xebet ñoom ndax nan jullit war a mel dañ koy mel melukaan boobu nag lañ soxla jaam bi di ko doxali digganteem ak borom fu mu toll bu ko defee nag boo gisee al ihsaan ñu dugal ko ci buntu tasawuf wala boog ahlu tasawuf boo xam ne al ihsaan tasawuf ko dafa sant mooy jaamu yàlla gu ne dafa am farata waaye dafa am sunna am farata am loo xam ne ko sopp rek ni ni julli amee farata am julli yoo xam ne sunna la léegi nag ki nga xam ne moo bëgg doon alhamdulilahi wa xadim rasuli alhamdulilahi dëgg dëgg dëgg farata yi moom kenn waxale ko dafay def bu wóor a wóor ba noppi nag la ca dolli ko ci ay sunna yëpp mu di ko def ndax alquran dafa xaaj nit ñi ñetti cër am na ci ku ñu wax zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum saabiqun bil xayraati bi ismillah faam koo xam ne moom dafa wàcc aw yoon ndax la ko suñu borom digal defu ci dara lam koy tere it ma nga koy def kooku zaalimu nafsi la boppam la toog muqtasid mooy koo xam ni suñu borom dafa digle ay farata am ay nawaafil yi nekk ca pegg ba mu am yu mu araamal am yoo xam daf ko sib ca pegg ba ki nga xam ne daay am ci di def li li li li war ci moom la ñu araamal it mu bàyyi ko yam ci kooku mooy muqtasid nga xam ne xaj na lenn ci nawaafil yi dana ko def lenn ci makruhaat yi dana ko def kooku mooy muqtasid saabiqum bil xayraat bi bismillaahi nag mooy fii sëriñ bi nekk mooy ko xam ne muharramaat yëpp daf ko bàyyi waajibaat yëpp mu ko def makruhaat yëpp mu bàyyi ko di def mën doo bàyyi boole yi ñu farataal ci yow nga di ko def yi ñu sopp nga di ko def yi ñu araamal yëpp nga bàyyi ko ak yi ñu sib kooku mooy alhamdulilahi foofu la sëriñ bi nekkoon ndax bind na ni musumaa tooñ yàlla musumaa tooñ yonent kon jaamu gu ne dafa am farata am sunna ni mu amee ci julli noonu la amee ci koor amee ko ci asaka koor am na kooru farata am koor bu ñuy tuddee kooru ngàtt na asaka ab sarax la ni mu doone farata noonu la amee ay sarax yoo xam ni dañ ko sopp ci nit ki rek mu di ko def léegi nag yooyu yëpp nag dañuy bëgg nit ki ba doon faratam na ko jiital fexe ba aw fépp lu ci manqué mu seet nag ñu ci dollee yee dañuy bëgg nit ki yee suñu borom araamal ci moom mu moytu ko définitif ba noppi nag yaa nga xam ne dañ koo sibit muy muy seet nag ko jam moytu dafa yonte bi ne woon alxalaalu bayyin wal xaraamu bayyin wa baynahuma umuuru mushtabihaatu laa yaclamuhunna kasiiru min annaas fa man ittaqa subuhaati faqad istabra'a li diinihi wa cirdihi wa man waqaca fi subuhaati waqaca fi lxaraam karraaci yarcaa xawla alxima yuusiku an yartaa fiih ala wa inna li kulli malikin ximan ala wa inna xima allahi mahaarim yéen dafa waxoon ni li lew lu leer nañ la li araam it lu leer nañ la dafa am nag yu lënt yi nekk ci diggante bi yoo xam ne nit ki di naatul ba xam dagan wala araam mun yooyu ku bëgg a setal sa diine ak sa der da nga fa da nga fa bàyyi ba ci yi lënt sax boo bëggee setal sa diine ak sa der da nga ko fay bàyyi daan ndax boo ca xasee tab bi ci yu lënt yooyu yaa ngi mel ni ku dem ba ci aw dig diggu tool nga di fa sàmm diggu tool nag boo ca sàmmee boo yeexee dana dugg ci biir tool bi doo koy daani te nag buur bu ne am na dig moom rëdd ne bu ko kenn jegi te yàlla aw digam wi mu rëdd ne bu ko kenn jegi mooy yim arab wa inna himallahi mahaarim kon jul loolu ma tudd léegi muy julli ak woor ak sikar ak ak ak ak yi ñuy demee loolu la ñu tuddee jaamu yàlla gi nga xam ne ibaada shaa'iriya lañ ko tudd loolu mooy jaamu ngi dox diggante nit ki ak boromam mu des geneen jaamu muy ibaada taamuliya muy jaamu yàlla goo xam ni jaamu yàlla jëflante la bu war a dox diggante nit ki ak i morom yëpp nag dañ koy soxla ci nit ki ngir mu nekk abdullah day bàyyi xel jaamu bi dox digganteem ak borom nga xam ne julli la sikar la woor la kooku benn intérêt doomu aadama ak jaamu gi dox digganteem ak ay morom asaka moo ci jëkk sarxe di leen dimbale ba noppi nag saw ay ñu mucc ci façon jaam ñaari jaam yàlla yooyu yooyu moom da ngay jiital benn ak teg ci bi te ñaar yëpp daa war a dox nit ki dooga mën a doon alhamdulilah kon jaamu yàlla gi dox diggante nit ki borom muy jullee woor sikkat ak di xalaat ak yene demee yooyu dafay defar jikko dafay defar jikko di defar ak ruux di sellal bakkan ba nit ki mën a ak ci daraja yu kawe yi ñu soxla ci jëflante bu rafet ak jikkoo jikko yu rafet te mooy am yërmande ci nit ñi am ak ñeewante ci ñoom li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko nit ñi nooy moo ko sa diggante ñoom ndax doomu aadama dafa baaxoo dafa am sax ci jikkooy doomu aadama rek rëy ndax loolu nit dañ ko bind ci suuf suuf dafa diis ñu bind ko it ci wolug ruu ruu ak leer la goo xamante ne suñu borom moo xam ne deme waaye diisaayu doomu aadama ak bëggam daraja ak ay xëccoom ak i bañanteem ak xeex yi ak xuloo yépp nii ci cëru suuf boobu ci la bàyyi loolu lépp nag nit di di bu jaaree ci jaamu yàlla yële mooy setal ak ruuxam sellal ko ba nga xam ni jëmm ji dana mën a woyof ba li ñu bëgg ci moom ci ay jikko man ko ci ay jëfanti rafet muy am yërmaande yërmaande melow suñu borom la léegi nit ki bu taxaw yàlla dëgg ci julli ak woor ak sarxe ak def yu baax yooyu dana mujj jikkoo jikko jooju bu fay def sax du ko tay dana mujj am ak ñeewant dana mujj bëgg nit ñi lu baax dana mujj woyof dana mujj it am warma ñëpp ci ñëpp warmande ngir ñëpp yàlla lay xool ci ñoom war warmaal ñëpp ngir ñëpp yàlla lay xool ci ñoom wet ñëpp ngir ñëpp yàlla lay xool ci ñoom di jokk bokk jokk bokk te mooy daanaka mën nañ koo tënk ci ñaari tomb yooyu muy nit ki di am naqar di am bànneex bu amee bànneex nga ndokkeel ko boo amee aw naqar nga defal ko lu mu doon rek nga ànd jàmm solidarité boobu waaye loolu nag la koy may nit ki ba mu ba mu def ko dëgg dëgg dëgg fonk yee moo koy may ñaar jàmm yàlla yi dox diggante nit ki ak borom yooyu yooyu dafa yonente yi andi loolu mooy li yonente yi jàngale waaw dimbalante ak nit ñi fab sa mbooleem kattan yi nga am ak doole yi def ko ci lu lay may ngërëmul yàlla loolu li tax nga man ko li tax nga man ko mooy suubu jaamu yàlla yee ma tuddoon rek loolu yi nag mooy yoonu Sëriñ Tuuba muy jaamu yàlla bu set wécc ci julli goo xam ne dara raxu ci yàlla képp tax nga ko def koor goo xam ne dara raxu ci yàlla képp tax nga def di sikar te dara raxu ci yàlla képp tax nga def sikar nag na ngeen xam ni bari na ku mën a yor kurus xanaa ne yor bu ba set te yàlla taxul mu ko ndax ni ñuy làqal ci ay projet ci zahir noonu la ko nit ñi di làqal ci ci bari waaw waaw di war ay course di wérd waaye fekk ne dañuy làqal ci ay projet loolu daa mën a xam baax a baax am na benn waay boo xam ne man damaa jaaxle man ko xam man damay jàng akoon bu bari di sikkar bu bari jàng xasee bu bari waaye yëguma daal lu ma lu mu def ci man jamono bu ne maanaam business bi ma daan def ak tàmpale yaakaar ne ma te yàgg na ma waaye mu mel ni kon dafa mel ni ba mu koy def am na lu ko lu lu mu laal ci suuf rek waaw lu mu laal ci suuf moo tax ixlaas lu sell dañ ko soxla ci yu mel noonu suñ suñ ci wax rek ak jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell wécc ci la gu dara dafa waaw te rax dafa mën a am ci lu mën a doon lu mën a doon rek ab rax da caa mën a waaw Sëriñ Tuubaa yoon wi mu jaaroon moom daf ko leer moom mooy maqaamaatul yaqin yi yi al tasawuf tudd wax ni balaa kenn mën a doon jaamu yàlla dëgg àgg ca fañ soxla ci ak ngëm day jaar ci état bi ñu tuddee ko maqaamaatul yaqin mooy tuub tuub moo ci njëkk tuub nag li muy tekk mooy dellu ci yàlla dellu ci yàlla nga xam ni day am jamono boo xam ni da nga fay bàyyi nag mbir yi adduna yaag projet yaag ak daal diggante bi yëpp ni saxal lépp nga jox ko yàlla dellu ci moom loolu nu mu toll rek baax donte donte trente minutes la sax yoo def noonu xewuñ ko waaw waaye tuub lay tekki ñaareel ba it saa boo wàccee yoon wi te jamono bu ne nit ki fa mu toll mi ngi wàcce yoon wi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kullu ibnu aadama xataa'un wa xayrul xataa'iina at-tawwaabuun beneen ci xadis bu xus yi boo xam ne Abu Zarr moo ko nettali jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy xadis bu xus yi yi nga xam ne day doon wax yi sunu borom bala ko jaar ci làmmiñ yonent bi yaa ibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum muharraman fala tazaalamu damaa araamal tooñ ci sama bopp def tooñ nit mu araam ci seen diggante ko leen bu leen disañante daal di wax ne yaa ibaadi kullukum daalun illa man hadaytu fastahduni ahdikum wax ni yéen samay jaam yéen ñëpp a réer ba mu des ki ma gindi kon sàkku leen ci man ak gindi ku ma gindi leen yaa ibaadi kullukum jaaiun illa man ataamtu fastatimuni utimkum mooy yéen ñëpp a xiif ba mu des ku ma lele ku ma jox lele kon sàkku leen ci man ma lele leen yaa ibaadi kullukum aarin illa man kasabtu yéen ñëpp parafle ba mu des ki ma waddu fas takk suu nii ak suko kon sàkku leen ci man ko daay ma waddu leen yaa ibaadi innakum tuxtiuuna billeyli wannahaari wa ana aghfiru dunuba jamian fastaghfiruni aghfir lakum mu wax ni yéen sama jaam yéen ñëppay mooy ci guddi yi ak bëccëg te man mii maay jégle bàkkaar yëpp kon sàkku leen ci man ak jégal ma jégal leen yaa ibaadi innakum lan tablugu nafci fa tanfauni wa lan tablugu durri fa tadurruni yàlla ni bu ngeen may jaamu amaluma benn njariñ ndax sama njariñ jotu leen ko di ma jëriñ bu ngeen ma mooyee seen bopp ngeen koy teg ndax sama lor jotu leen ko di ma lor yaa ibaadi law anna awalakum wa axirakum wa insakum wa jinnakum kaanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zaada dalika fi mulki shay'a muy yéen jaam ñi ñi jëkk ci yéen ak ña ca mujj ñi ci doon ay nit ak ña ci doon ay jinne buñ maase woon di ma gën a ragal yàlla ni ki ma gën a ragal yàlla mel muy ki ma gën a ragal yàlla ni mel mu yonente bi sax sax ñëpp yor xol yonente bi ci ragal yàlla du tax sama nguur dara doole ko ci yaa ibaadi law anna awalakum wa axirakum wa insakum wa jinnakum kaanu ala afjari xalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dalika min mulki shay'an mu ne yéen samay jaam ñi jëkk ci yéen a ca mujj ñi ci doon ay nit ak ñi ci doon ay jinne buñ maase woon gën a kàccoore ni xolub ki gën a kàccoore ci jaam yi muy iblis du wàññi ci sama nguur dara yaa ibaadi law anna awalakum wa axirakum wa insakum wa jinnakum qaamu fi saidin wahidin fa saaluni fa aataytu kulla wahidin masalatahu ma naqasa dalika mimma indi illa kama yanqusu almixyatu ida udxila albahr mu ne ñi jëkk ci yéen ña ca mujj ñi ci doon nit ak ñi ci doon ay jinne bu ñu maase woon taxaw ci benn place kenn ku ne xool la mébét lépp mu ñaan la ko ku ne lam xalaat ba ñaan la ko ma jox ko koy du wàññi ci la ma yor lu dul lu mel ni pusa boo dugaloon ci ak liy gëne da ca toq rek moom def la ñu mu doole seen yaa ibaadi innama hiya amalukum uxsiha lakum summa uwaffikum iyaha lépp lu ma leen jox rek seeni jëf la dama leen koy téyal rek bu ngeen ko soxlaa ma delal daal ne fa man wajada xayran falyahmadillah wa man wajada xayra dalika fala yalumanna illa nafsa lu baax loo gis santal yàlla ndax moo la ko baaxee waaye leneen loo gis nag na nga xam ne yaa ko def waaw nit ki suñu borom amul lu bon lu muy lu muy lu muy fab di la ko ëpp waaye nit ki mooy def lu ñaaw suñu borom ba mu amul fu mu ko denc ni ko suñu blaat waxoon suñu borom bi mu ko téye téye amul fu mu ko denc mu fab ko delloo ko moo tax boo fabee benn bu baax def ko mu fab fukk yu baax doon law ci boo defee benn bu bon amul fu mu ko denc moo tax dana koy delloo faman wajada xayran falyahmadillaah wa man wajada xayra dalik falaa yaluumanna illa nafsa sëñ Tuubaa daan tuub di tuub ba àgg ci jëmmi tuub googu sax daf koy tuub sëñ tuub sax day wax dafay tuub day wax ne ay qantu bil zafari bil ijaaba summa lahu atuubu bil inaaba xatta lahu atuubu min mataabi wa min xawaatiri wa min sawaabi waaw waaw borom xamante soobi dañuy wax ni ba ci tuub dafa doon lu baax boo tuubee yëg yëg ba ngay am ci ne def naa lu baax képp loo leen sëñ tubaab tubaab yëg ni def naa lu baax rek muy tuubaat léegi yëg yëg boobu ndax mu ne xataa lahu atoob min mataani ba ci sama tuub sax maa ngi koy tuub mu des muñ muñ it dafa mënta ñàkk ci ab jullit ngir nga doon jaamu yàlla ndax suñu borom ay dogalam nit tuut na ci fànk ko te it lu ko neex lay def lii tubaab yi tudd démocratie nag ngeen dem naa def loolu yàlla nekkul foofu de yàlla ay démocratie yëpp yoonam nekkul lu man neex laay def lay wax waaw ah duñ demee yooyu waaw. ginnaaw nag lu ko neex lay def jaam bi liñ soxla ci moom foofu mooy bu defee lu la naqari nga muñ ko te mooy nga concentré wu bañ caa wax lu ëpp bañ ko caa def bu defee lu la neex nga sant ko kañ ko ba mu xam ni yëg nga lii mu la def loolu lañ soxla ci. jaam bi mu doxe ko ak borom sëriñ bi ñett yooyu muñ sa diggante sa borom bu defee bu dogalee lu la neex nga sant bu dogalee lu la naqari nga muñ la ci des mooy jaami yàlla yii nga xam ni da ngay jaxasoog ñoom boo mënta muñ doo mën a jaxasoog ñoom foog nga muñ sëriñ bi daal wax ni ku ñu ci tooñee te na nga muñ ndax nit bu ñu ko tooñee mu muñ suñu borom dana ko fayul fay ko daana wax ne xam ngeen fu ma leen naxee ñu ne ko ah mun leen dañu maa tooñ ma muñ ko ñu fayul ma fay la kuñ ci tooñee si yéen da nga ko muñ daana fekk sax béréb bu ñu war a muñee nga xam ne béréb bu metti lay doon mu dugal sax ak cant te cant ga di dégg ci man damay wax nag ni nit mën nañ koo teg lu ko naqari mu naan maa ngi sant yàlla waaye cant ga lay wax ji mooy du dégg ci man boo demoon ci biir da nga xam ne wax bi waaye sëriñ bi nag li xar baax mooy béréb bu ñu war a muñ mu di fa sant ci te sant gay dëgg loolu yàqin moo koy may nit yàqin ci li suñ borom dig muñkat yi nga am ca yàqin ci sa ngëm ba far dootoo gisati coono bi waaye fay ga ngay xool ba tax ngay sant fa loolu moo waral moo war a ma moo mën a waral nit béréb bu mu war a muñee mu di fa sant mooy am yàqin ci li suñ borom dig wa bashir sabirin alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma yooyu ci yàlla digee nga am ci yaqin mooy waral au lieu ngay muñ nga far sant ngir di xool lay bu dee cant gi it dafa wax ni saxala ni sukru ani sikaar sant soxlaal na ma ba mënumaa taxaw sax di jàmbat moom amul place njàmbat moom sëriñ lépp lu muy waxtaan ci xadi ci ci xaside yi ci ay may yu ko suñu borom defal du jublu ci ndamu waaye sant suñu borom la ndax yàlla moo digle ci alxuraan wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis ak cant la ci jublu liñ bi mu jaxal moom ba nekk abdullahi wa xadim rasul yi ya ci gën a fees laay laay wax laay leer loolu muy maqaamatul yaqin yi ahlu tasawuf bind noonu it magi murid yi ci loolu la leen yare woon muy xéewal nga sant ko la metti nga muñ ko sëñ bay jaxas nee na faral dëgg doyloo xarit lii nga am dangay doylu doo doyle lii dégg ko ñi am junni tey ak ñi am tànk ku ne ngi tawat tey wutug dolli ko te foo seeru buur ak yëfam ak ñoñam ma ngay aajo lëf aajo kenn ñàkk ko te foo fekk kuy wax ne man sant naa da des gor da ñàkkul lu muy nenni te foo fekk it ab tawatkat du nit te du si gor lu dul sant yow matu ko mu nekk sant gën lépp loo mën di def na ngay sant kay muñ tawat nag ba ko na ngay sant xéewal di muñ jëpp lor ngirum gaay yàllaa ngi ni soobu amaanaa nga gis gaay yi ñuy ree ka bég di sooxaale ay lor yu dul tegg dañuy dox di di nëbboo ko nëbb yi tawat te koo gis ci ñoom mos tegal doy na ko lu dul doy du doy nag te luy doy di doy murit mbubb daal ak tubay doy na ko murit mbubb daal ak tubay doy na ko suñu borom nag moo bind mbindeef yi bindaale ci bind ak ñàkk bind am koom waaye dafay bind ak ñàkk akum koom lu ci ne ngir di ko nattoo doomu aadama ba xam fu ba xam ne lay taxaw li jëpp ab nattu lay lay doon ci nit ki noonu lay bindee ak ñàkk akum koom mu doon sababu jaamu yàlla mbaa sababu mooy yàlla ak ñàkk mën naa sabab ak jaamu yàlla mën naa sabab ak mooy yàlla am koom mën naa sabab ci nit ki ak jaamu yàlla mën naa sabab ak mooy kon ay nattu lay suñu borom bi nattu nit ki loolu tax suñu borom wax ni wa nabluukum bi sarri wal xayri mooy danañ leen nattu ci aw yiw ako ay ibnu abbas bu nga firi dafa wax ni bi shiddati war raxaa mooy yomb ak jafe suñu borom dana nattu nit ki ci yomb ak jafe dana ko nattu ci am koom ak ñàkk dana ko nattu ci ak wér ak wéradi dana ko nattu ci lu araam ak lu dagal lu ci ne rek suñu borom dana ci nattu xool ba xam noo cee doxe mu dellu wax ci alxuraan ne dina jox nit ki am koom waaye jubluwu ci teral ko dana xañ nit ki am koom it waaye jubluwu ci doye dal ko waaye nattu la nattu la ci jub moo tax nag mu ne fa amal insaanu ida mubtalaahu rabbuhu fa akramahu wa naxamahu fa yaqul rabbi akram waaye nit nag nee na ni mu baaxoo mooy saa bu ko suñu borom nattoo alal jox ko ko jox ko xéwal day jàpp dana wax yàlla teral na ma fi mu toll waaye fekk na xamagul ne mën naa am loolu dara nga fi mu toll daal nit ki saa bu ko suñu borom nattoo manque wërsëgam mun yàlla def maa doyal nag te moom loolu mu jàpp ne ak doyal la mën naa am sax suñu borom teranga def bi waaw dafa dafa doon ko xereñ te sewer na te xaw a jot ay mbir suñu borom lam ci teg mooy kàllaa déedéet muy déedéet ni ngeen ko jàpp ci noonu lu lu lu caggee ni xéewal bu mu doon teraanga la lu caggee ni natt bu mu doon ak doye dal la yàlla dana teg nit ki lu metti waaye daf koo jubloo teral dana jox nit ki xéewal waaye daf koo jubloo natt rek mën naam sax loolu torosaan la doon jox kon nit ki mënta ñàkk xam loolu ngir ma nekk dëgg-dëggi jaamu yàlla di dund ci ak ngëm jox boppam yàlla ba nu mu dogalee rek mu dàkk rek moom ci noonu nit ki mënta ñàkk xam loolu ngir bu amee am koom du bew bu ñàkkee it du tax mu ñàkk fayda benn boroom xam-xam benn woykat boo xam ne laa tax ba an na li maxluqin ala tama bu la xemem te mukk yóbbu ci ngay torox loolu doomu aadama fa inna dalika wahmun minka fi diin ndax loolu manqué te diin lay teg ci wastarziqillaha mimma fi xasainihi mooy bu bu lu la jafe rek ñaan ko yàlla fa innama al amru bayna kaafi wal noonu ndax yàlla léppam ci diggante kun faykoon la ci la nekk inna alladi anta tarjuhu wa taamuluhu min al bariyati miskinum miskin mu ne li ngay yaakaar ak mébét ci ay mbindeef yaa ngi mel ni miskin boo xam ne doomi miskin la maanaam ku ñàkk te bàyyi mi doon ak faqiir nga xam ne moom yaakaar yëpp ci bàyyam la ko aj te bàyyi mi amul lu mu def léegi nee na lépp looy yaakaar ci mbindeef bi noonu la demee miskin bu doon doomi miskin la léegi kon muñ ak cant moom day ñaari jikko yoo xam ne jikko yi islaam lañ te balaa nit kee nekk alhamdulilahi xaqam fokk mu meloo ko fokk nga meloo ko sëriñ bi ana lu mu ko dundee woon yaa rabbi in aataytani fa sukru wa in manaata fa ridan wa sabr boo ma joxee ma sant waaye ma la ñaan ak gàntu sax ma nangu dogal boobu te muñ ko daal di wax ne fal man huwa alxataau xataan minka laa min siwaak xaroo baytu anka mu ne muy am ak xañ nit ki ñu may ko ak ñu xañ ko lépp ci yàlla bàyyi ko waaye du bàyyi ko ci ci doomu aadama wax na sax yàlla ne ko man huka afdalu min al ihsaani min malakin aw jinnin aw insaani ma ñaan la nga gàntal ma sax moo ma gënal rafetal bu jóge ci nit mbaa mu jóge ci malaayka mbaa mu jóge ci jinn fu ak rafetal mën a bàyyi ko rek sa gànt moo ko gënal fi mu moom mu ñaan suñu borom mu gàntal ko moo ko gënal may bu ak fu mën a bàyyi li kaw ni man ayka huwa alxataaya li mahwihi al uyuba wal xataaya wa kaw ni ihsaani al bariyati xijaab ndax nee na su ma ñaan nga gàntal ma loolu mooy jëmmi ak may ci man ngir dafay far ay ayib di far ay ñaawte waaye rafetalu mi neef nag kiiraay lay doon ci diggante ma borom wa kaw ni ihsaanil bariyati xijaab kon nit ñi rafetal bu ñu rafetal jëm ci yow mën naa doon kiiraay sax si diggante yow ngir si diggante ak sa borom ngir mën ngaa jéng jëm ci ñoom ba loola doon kiiraay waaye yàlla ñaan la nga gàntu nga gën a toroxluwaat mën naa doon loo xam ni tawfeex la ci doomu aadama léegi foofu la nekkoon moom sëriñ ba ca dolli ko ci ma xamal yoo xam mooy dëddu dëddu àddina yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ku laaj ku ko laaj ne ko nan laay def ba nit ñi yàlla bëgg ma nit ñi bëgg ma mun ko boo dëddu àddina yàlla bëgg la nit ñi lañ yor boo leen ko fa bàyyi la ñu bëgg la kon doomu aadama safaanu yàlla la yàlla mooy koo xam ne day bëgg sa lépp nga aj ko ci moom doomu aadama mooy koo xam ne bëggul ko aj ci moom dara loo ko aj rek ëpp na ci izhad fi dunya yuhibbaka allah wasxat fii ma inda annaasi yuhibbaka annaas moo tax sëriñ bi ci mu dem ci njaareem ji rek murit boo xam ne daan defal junjeer di ku ko andil jigéen bi daan defal junjeer di ku andil waaye ñaari fan la ci jëfandikoo ñetteelu fan ba mu ne nañ ko delloo ngir damay bañ sama bakkan tàmm ko te sëriñ Basiru mi ngi wax ni booba de bu bëggoon ay bëri koy junjeer par bis dana fa am waaye nam jàppi woon adduna ci njëlbeenam bi mu dem ba ci mujj bi benn jàppin bi la sàmmoon teg it sëriñ Bachir mi ngi nettali ne am na koo xam dafa mës a rëcc ñëw bokk dugg ci biir talibé yi talibé yow di liggéey ba borom topp si ko ni ni ko diw sama jaam la dama dégg ñun dafa daw ñëw fii ci yow sëriñ bi gëstu ko ñu ngi ko am ñu ngi ci biir daara ji mu am mu joxe ndigal nañ ko na daal dem te diir li mu fi liggéey nañ ko xayma jox ko sang nañ xayma li mu fi liggéey nu mu war a toll ñu jox ko sang bi mu yóbbaale neen nag lu mel nii bu leen nangoo te mu di fi dugg daal ñu leen wax ni leen daray jàmbur rek bu leen ko jëf daray jàmbur rek bu leen ko jëf sàmmante googu yi moom la ak njabootam daan dund am na kenn ci dong yi daan tarbiya wu ci këram Saliou ku ñuy wax Saliou Dieng dafa maa nekk benn bés dafa ñëw ci sëñ bi moo keneen keneen ci jëwriñ te sëñ bi loolu daan la fa dal da ngay ñëw nii di di di topp dara loo xam ne lu lu néew lay jar ci njëkk waaye mu jafe la lool te nga gis xaalis bi dugal fi génn loo xam lu ko waral ñoom ñooñu nag dafa mel ni sëriñ bi da leen defal tawfeex ci leeral gi mu leen ko leeral da leen wan ni leen dama lii ma leen di leeral ak laajir laaj jëm ni leen yéen a ngi ñëw di topp loo xam ne xaalis a koy lijjanti te ngeen gis xaalis bi ci dugg ak a génn te mënu leen cee jot ñu ko wax mënu leen sëriñ xam satu jaxate bi nekk ni ci kër gu mag lépp di sotti ko nii te këram cin du ko tàkk ba sëñ bi benn bis mu ne ko am sa da xanaa da nga jaaxle ndax na kër ga demee ak lii nga gis muy sotti ko mu ne ko waaw mu ne ko lii fi sotti ko li muy bari bari lu néew laa ci sañu jëfandikoo te lu néew loolu ma ci sañu jëfandikoo ci laa bëgg ngeen di jëfandikoo nga di ci jëfandikoo yow nii sëriñ Saliou wax ñooñu ni leen nag loolee nag moo fi jógul ba fi toll nii lii ciy sotti li muy bari bari lu néew laa ci sañ jëfandikoo te lu néew loolee ci laa bëgg sama daara yi di jëfandikoo loolu moo war a nit di jógee ci daara ñu di topp dara loo xam ni alal la koy jënd ñu gis alal ñu ngi sotti ko te duñ ci mën a jot ndax lu ci ne am na fu mu ko fu mu ko jënd dañ leen loolee moo fi jógul ba léegi ndax lu néew laa ci sañ jëfandikoo te lu néew loolee ma sañ jëfandikoo ci laa bëgg sama doom yi muy daara ji di ci jëfandikoo waaw bu ko defee muy ragal yàlla ak bëgg ko ragal yàlla ak yaakaar ko yaakaar ji mooy loolu sëñ bi wax léegi ni man huwa afdalu min al ihsaan bu dee ragal gi it wala su arju wala axsha siwa maliki yaakaar ak ragal mu def moom kenn ku dul yàlla bu dee bëgg gi yàlla it dafa fis ci léppam ba àgg ci ni liy tegtale ne man xaritu yàlla ab sapin la mooy duma gis ku ma sopp dalla ala kawnil xalil alxiba alla ara man lam yakun muhibba am na fenn fu wax ne ahabani albaaqi fala ulaaqi gayra muhibbi yàlla bëgg na ma ba du ma daje ku ma bëggul ba ci tubaab yi sax bi muy bi mu nekk seen biir ñu jàpp ko léeg-léeg da ciy am koo xam ne jékki-jékki am ci moom cofeel koo xam ne di di koy liggéeyal ni ko mënul ciy liggéeyal mu mel ni kon jikko yooyu nag bu ci nit ki jafandoo dëgg te liñ boobu ma wax moom mooy liñ bi Sëriñ Tuubaa gën a fésal ci fu mu jaar bu ci nit jafandikoo dëgg dëgg dëgg dëgg dafay defar ak xolam sellal ak ruuxam ba defaru xol googu ak ruubu sell googu mooy jeexital ci ay cëram jeexital ci aw làmmiñam ba du ma mën a waxat lu dëgg jeexital ci ab gisam ba du ci xool lu aram mooy jeexital ci ay noppam ba mu tëj ko ba du ci nangoo déglu lu aram mooy jeexital ci ay tànkam ba du ci dox jëm fu aram bu defee nag meññet mi gën a fis ci meññet mu loolu yi di meññ mooy sab jëflante sa diggante ak nit ñi nga rafetal waaye képp koo xam sax yaa ngi koy def di julli di woor di sikkat te sax feeñul ci say jëflante nit ñi dangaa mel ni kuñ jox oto def ci essence nga war a jóge Dakar jëm Touba nga nekk yoon wi di tërëri dawal waaye àggagu nag li feeg jëflante bi li feeg jikko yooyu feeñul ci say cër ba feeñ ci sa jëflante rek doonte yaa ngi def nga xam yaa ngi jël di war di sikar na nga xam ni fa nga jëm àgg ko ndax fa nga jëm boo fa àggoon dafay defar say jikko ba mu feeñ sa diggante ak ñi ci ab jëflante bu rafet kon kii jaar ci moyens yooyu ma wax ba jeexit yooyu feeñ ci ay cëram ba meññet moomu mu meññ ko te mooy jëflante bu rafet diggante ak nit ñi kooku moom la doon xamdulillahi xaqan wa xadimu rasulihi mu mel ni kon ki nga xam ne mooy doon jaamu yàlla boobu di dëgg yonente bi dafay digg doomu ci diggante jaamu yàlla yooyu dox diggante mu boromam waaye ak jaamu yàlla yi war a dox digganteem ak nit ñi muy jëflante bu rafet te sëriñ bi kat dañuy wax ni yoroon na ci jikko yu rafet ak ub jëflante loo xam ne loola dong war naa mën a taxawal tariixa bi ci loolu sax mi doon bàtt ndi ci dugg ndax yëg bu bu mu amoon ci doomu aadama waaye nag Sëriñ Tuubaa noonu mu dawul mu xàmmee woon àq yàlla ak àq yonente bi ba jamono bu nu yàlla di yàlla yonente bi di yonente bi mag ñi mu jëkk yarit noonu leen yar ba danañ xam yàlla xam yonente bi xam ko moom suñ may jaxat naan ko sa fan wi lay wéy sa jëmm ji wéy ñu topp lay wéy toppal la woy foo jëm ñu wër la ngir jëm yàlla ka tax ñu gëm la ba jox la liggéey kon kooku la ca war ci topp lépp toppe na ko te jaxasewul dara ak dara sëriñ bi daan wax ni utayhu ilaahi xaadiman lil wasilati mais loolu aw yoon la jubla wone ci ni yàlla ku ñu jaam la wasila dañ koy diggee mel ni kon loolu ab junj la ab joxañ la ci ni murid bi kon mais jaamu yàlla liggéeyal sëriñ Tuuba moo tax ñoom dañ daan jaamu yàlla di liggéeyal sëriñ Tuuba njàmbaari sëriñ Tuuba it andi lu leen woon ak yaafus dama jamono bu ne man damay wax ne ñun li ñu andi ak yaafus mooy njàmbaari sëriñ Tuuba boobu waaye mag ñoo ñeddi ñoom njàmbaari seen tubaab boobu andi lu leen ak yaafus ak njàmbaari leen andi te it nekkutoon di bokk ci ñooñu tax suñu borom di wax ni wa mina naasi man ya'budu llaaha alaa harfin moom jaamu yàlla gi jubluwu ci woon xëcc njariñ mbaa mu di ci jañ la daf koy jaamu ngir ne yàlla lañu war a jaamu di ko jaamu dafa wax ne walam azal a'buduhu ta'ziiman musulman dañ di ko jàmm waaye nag màggal ko doom moo tax ma di ko jàmm bu dee liggéey bi mu daan liggéey yàlla tamit sama som liggéeyalu ko ngir bëgg alal liggéeyalu ko ngir xaalis bi liggéeyalu ko ngir dara ndax dafa wax ni lam yuji bil xidmata xubbul asjadi bal xubbu man joila nuura sujjadi liggéey bi may liggéey yàlla tamit kat bëgg wóolu sa xaalis taxul la ko def waaye bëgg ko moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ma di ko def daani li ixdaani nabi xubbu zaatihi daani ilaamati nabi xubbu zaatihi moom daana mébét sax bay mébét ni yàlla naa bokk ci ña koy liggéeyal ëllëg ci aljana mu ñëpp liggéeyal suñu tubaab ci ci bi adduna bi moom moom bu ci lu ci ëpp sax buñ liggéeyee liggéey liggéey liggéey projet yi ñu doon laxa ci laxa ci laxa ci ko ñu tàmbalee naa tam moom li muy wax mooy yàlla naa bokk ci ña koy liggéeyal ëllëg ci aljana wajaal nii mimman yaxdimuunahu fil janna kooku mooy abdullahi mooy jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi mën a fi nekk di liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam meññet man ci jëlewaat nag mooy day mujj nga taxaw taxawaayu yàlla ci kaw suuf ndax yonente bi yàlla dafa wax ci xadis benn xadisul xudsi bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni man aada lii waliyan faqad aadantuhu bil harbi sama waliyu sama nit ki ma jegee noonu rek képp ku ma ko noonul rek déclaré naa la guerre mu mel ni dafa jubloo leeral wal yi daal ne wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi waaye nag ab jaam du ma jaam loolu du ma jaamoo lu ma gënal li ma farataal ci moom waaye nag walaa yasalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawaafil hatta uhibbahu sama jaam nag du jaa du dañ di ma jaamoo ay nawaafil ba ma bëgg ko waaye nag fa isaa ahbabtuhu waaw bi nawaafil waaw waaw ginnaaw ginnaaw ginnaaw farata yi waaw walaa yasalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawaafil mooy ginnaaw farata yi jàll ngay def nawaafil xataa uhibbahu ba ma bëgg la fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladi yasma'u bihi su ma demee ba bëgg ko maa ngi doon noppam bi muy dégg wa basarahu alladi yabsiru bihi maa ngi doon gisam bi muy gise wa yadahu allati yabtasu biha maa ngi doon loxoom bi muy jàpp wa rijlahu allati yamshi biha maa ngi doon tànk bi muy doxe wala in sa'alani la u'tiyanna wala in istaadani la uhlisan lu mu sàkku ci man ma jox ko ko lu mu lu ma muslu ma musal ko ci loolu nit day àgg foofu ci martaba moo tax boo xamee xadis boobu du la jaaxal sëriñ bi wax ni biraasu man baarazani biraasu man yu baarisul mun takk man baarisi man képp kuy letoog man yaa ngi letoog yàlla du la jaaxal bu fekkee dégg nga xadis boobu yàlla sama sama wax kon loolu mooy meññetum jaamu yàlla meññetum doon doon xaadimu rasul yi li mu wax ni taqaddumul muxtaari afdalil bashar salla alayhi man bi xafwihi amar taraahu fiya aynu kulli man nazar léegi yonente bi raw gi mu raw képp ku ma xoolal da nga ko gis ma waaw doon ba dem ba doon dalil ci ni yonente bi dëgg la dem ba doon dalil ci ni yonente bi moo yonente bi léegi mu ni loolu yi xidmaam moom loolu la ko indi mu dem ba ku ko gis xam ne yonente bi amul morom waaw naka noonu kon ñooñu ñu itam lañ ci jariñoo mooy murid bi nga xam ne mooy doon taalibe Abdullahi wa Xaadimu Rasuul boobu moom suñu daa war a fexe ba jëmm ba nga xam ne dafay sagal Sëriñ Tuubaa ba bu ñu ne kii taalibe Sëriñ Tuubaa la mu doon ab sax ci suñu moom na ko sëriñ bi sëriñ Abdou Lahad waxe woon ni yowmal xiyaam buñ demee ba ñëpp teew malaayikatu muqarrabiin yëpp teew malaawul alaa yëpp teew buñ demee ba tudd turu sëriñ bi ay nitam di jóg di natt di feesal di natt di feesal di natt di feesal bañ ñu wax ana ki nga xam ne biñ tuddee aw turam ba léegi ay nitam mooy jóg nii te moom jógagul sëñ bi wax ni sëriñ Tuubaa nee na foofu la bëggoon murid bu ne féete ko ku ko fa féete ku ne féete nga ko fenn ku ko fa féetewul ku ne nag nga xam ne féete woo ko fenn ba ci boo amee ajjan sax ajjan yi gàtt féete daal di waaye nag am na ñoo xam ni des des ñu leen tudd dinañ leen jël di leen tànc tànc di leen tànc tànc ba danañ àgg ci ne man de sama sama gàcce tey bii tàbbaloon ma sawar a des daal ko sax moo gën mun nag léegi murid bu ne nag war ngay moytoo bokk ci mbooloo mi te jamono bu ne ngay xënte woo bokk ci mbooloo mi di sagal Sëriñ Tuubaa ëllëg loolu kon mooy li nga xam ne doon nañ ko jàngate ci baatu Abdullahi wa Xaadimu Rasuulihi ak li ci mën di war a jëriñoo ñaan yàlla mu defal ñu ak dégg mu topp ak jëriñu di ñaan daje ñu gën a daje ak mbootaay bi ak mbooloo mi ak yëngatu bi jamono yooyu ñu gën a jëm kanam di ñaan mu doon ab jéego bu rëy ci loo xamante ni dana suuxataat bi fii ci xol yi suuxat ko ci xel yi ban mën a doon talibi sëriñ Tuubaa yi noonu seen talibi doon jaam yàlla yu mag nangu seen jaam doon ñi gën a taxaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci diine ji leen ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Thank you.